di bëgg ci moom di bëgg ci moom di bëgg ci ay mbokkam di ko félicité di féliciter l'ensemble des sportifs sénégalais la fédération l'encadrement technique ci ndam lu am solo lii lii nag li muy wane mooy liggéey rek am solo te jafe-jafe loolu tax nga découragé xool Sadio Mané jarul ngay am xam-xam euh, boo xoolee Bambali fa mu nekk ak football bi muy démarrer nii ñàkkul jafe-jafe yu mu dajal mais jafe-jafe yi taxu ko reculer dafa tax mu gën a am jom tey nag yàlla may na ko ndam te li tax mu gën a neex mooy xele la bu bewul xele bu am yar la li mu amit it mu ngi koy bokk ak mbokkam di dimbale doomu aadama yi jàpp ci développement économique et social réew mi kon doublement au delà de mën football mu ngi def yeneen i mbir dans le domaine de l'action sociale mais aussi de la diplomatie Sadio ne ku ko tudd tudd Sénégal donc loolu lu am am solo la ba tax na tey 16 millions Sénégal ñëpp a bëgg ni ko président Macky Sall wax rek mooy ñëpp a bëgg ci moom te dañ koy citer en exemple pour la jeunesse africaine mais aussi pour la jeunesse sénégalaise ñu xam ne yar ak teggi nag gëm sa bopp bëgg sa réew bokk na ci li tax nit am ci àdduna mais dañu gis ni dañu jógee Égypte mu am benn benn engouement bu garaaw gars yi ñëw aéroport xam nga jëli leen aéroport dox ba pare te suba yaakaar naa ni moom dafa war a ñëw aéroport te nee nañ la ministre des sports moo ko war a teeru mbaa da ngay woo sénégalais yi ñëw wala nan lay dem non mais sénégalais yi jarul ñu leen di woo xam nañ ne seen doom moo am ndam di ñëw dinañ ko sargal donc dina ñëw suba dina ñëw musée des civilisations ñu seetaan fi documentaire buy wane fi mu jaar yëpp ba yegg si fii defe naa loolu lu am solo la dina war a gisee njiiti réew mi aussi eh, ci bu présenté ko trophée bi ñi mu ko sargalee ni mu sargal ko ci turu réew mi sargale ko ci turu sénégalais yi yëpp defe naa ne ndamam ndamu Sadio Mané daal nañ jàpp ne ndamu 16 million de Sénégalais